ay koppar yu ñu luubal la ñuy tudd nag ki nga xamante ne moom mooy présidente ànd taxawu liggéey présidente ànd taxawu liggéey jamono ji nag moo nga ca kaso ba ñu koy toppee nag mbirum juuj njaaj a faatu la tudd santam daal di tàmbalee bee mu dëkk fële ca Parcelles Assainies unité 21 am lu tollu ci ñeent fukki at ak ñett fexe na nag ba jël ay koppar yu takku ci ay doomi aadama li mu loon doon gëmloo mooy dafa taxawal ab groupement boo xamante ne daf ko jagleel soxna yi. fay di kenn ci ñi nga xamante ne nag nax nañu ko Fatou fay daf ko jege nag ngir mu garantir ko ay koppar yu ñu mën a xayma ci cinq cent cinquante mille maanaam téeméeri junni. ak fukk yoo xamante ne nag lebal nañu ko ko ngir mu taxawal ab projet boo xamante ne dafay jaay li nga xamante ne moom mooy ay ndab ba mu jotee bile financement ñu mën ko ma ci téeméeri junni ak fukk benn banque bu nekkee ca bile diwaan moo ko ko aal faatu nag dafa dellu ci ci nga xamante ne moom mooy afay xamal ko nag ni ko yee koppar luwee na ko ab magasin te nag ci weeru octobre atum 2020 ci la war a tàmbalee fay yooyee koppar la mu diggee woon nag defu ko ca dat ba nga xamante ne moom la joxe woon banque ba di ko ay yoon itam ca police bu Parcelles Assainies ngir porter plainte ki nga xamante ne moom mooy Fatou te nag mu garanti woon ko ca banque ba Fatou jëloon ci moom un million 800 mille comptable ba nag di am jara moom nag nekk na ab victime kii di Fatou ñàkk na 250 mille te kenn waralu ko ku dul faatu Fatou nag li ñu koy tuumaal nee na moo ko def defeere nañu ko ca parquet ba di ko toppee ay escroquerie yu bëri